rasulaay kii mooy Ablaye Diop xaas ak oto bu rafet ya ah xaaral ma ñëw dugg fekk ko laaj ko information bu doy waar li indi coow ci réew mi xaas mu nekk nii xaas ak ñaanu xaas barke rasulaay xaaral ma ñëw plaque bi nag du leen ko won ma ñëw simila asalaamaaleykum waaw tukk na sëriñ bi yow yow moom Cheikh lu xew ah. Ah, xas li tax ma fekk la ci sa biir oto nii yóbbu ma la mais dama am sañ-sañ ci yow bëgguma nit ñi woo ku ne say soppe nit ñi naan leen xaas sëriñ bi takk takk suuf ku ne mu ngi may woo naan ma xaas xaas xaas xaas euh, ca Gàmbi hmm. loolu noonu loolu mën a leeral ci nu mu demee am na wala amul lan la dañ ne da nga takk takk suuf benn femme bu nekk Amérique doon Gambien moo ko wax waaw se xam nga li gën a bon ci àdduna mag muy toog di wax loo xam ne du dëgg neexul. kon du dëgg. maanaam boo bëggee dëgg-dëgg. waaw ndaw si li mu wax du dëgg. Mm-hmm. te moom maanaam bu doon dëgg. waaw gis nga ki nga xam ni moom la doon moom xanaa ñàkk na fayda lu tax mënta génn leeral boppam. te am nay mbokk. léegi kii nga xam ne moom noo yàlla baal sax xam nga day jigéen mm-hmm. moo tax des koy suturaal waaye Cheikh xam na ci loo xam ne amul njariñ ku xaw sa sutura moom da nga koy suturaal ko mm-hmm. baax mais adduna noonu la nit doo ñaan yàlla mel ni moom te Cheikh jaar ma wax la ko tey ci àdduna mm-hmm. man Ablaye Diop Xaas li ma yàlla def def na ma ko ba pare nit mënu ci dara ci kaw mais li ci ëpp important mooy lenn rek laay nawee nit mooy xol bu rafet bu rafet Cheikh man mënumaa d'accord ku jug di wax waxuma la dara maa ngi koy wax sama soxna te mhm. loolu amul tey. amul suba amul ëllëg. Mhm. pour wax la. waaye te li ci gën a yéeme xam nga Gàmbi laa nekkoon di faj comme ñëpp. Gàmbi di mbooloo yëpp di fa ñëw. Mhm. ndaw si di fa ñëw comme ñëpp. nekk sama xarit. di sekk lu baax. Hmm. jàmm ak salaam laa sikkam muy ku baax aussi ndaw soo hmm, bëgg borom këram yàlla xam na ko ak yonent bi li ko Gambie hmm. yëpp xamee man loolu laa ko xamee pour wax la kon loolu nga xam ni wax na ko mais ndaw si wax loolu lu mu ci jublu moom loolu yaakaar moom ah, la a dafa am loo xam ne Cheikh dafa amul njëriñ te te moom waaw te moom bu tegoon ci aqulaay taalaam sax xam nga bu amoon nga man di waaw waaye lu amul xam nga ne am a xamal waxal mhm. amul amul suba amul kon wax ji jeex na xanaa amul bu ma ci kenn woowat ma sëñ bi lii ak sëñ bi lee amul dama ne woon ma benn importance sax bëgg bës bi ci réew mi daal d'accord ma daal d'accord d'accord tuma ko yàlla ci kon daal li bon di def live nit ñi di xool ne kii dina wax lu dul am kon nañ ko moytu bu baax a baax a baax ay vues du dara àdduna boo bëggee dundee fii moo ngi mel nga jël alalu jàmbur di ko dundee rek. rafetal leen yéene yi ak gis-gis yi tey wax lu baax di def lu baax ndax ngeen am lu baax. ndax ku yàlla xas baaxal kenn mënatu koo bonal. kon nani nangu.